Alpha Fall la euh, sur les accidents qui existent dans ce pays là. Ah, surtout bi nga xam ni mooy euh, bi nga xam ni moo gën a tiitloo nit ñi. Mhm. muy euh, au niveau de laviation l' aviation et te seetlu nañ ni. accident yi barina na Sénégal depuis depuis très longtemps et euh, aujourd'hui il faut interpeller le ministre des transports mhm. terrestres et des transports routiers pour wax ko ne ko am na lu mu waxoon le 11 janvier 2023 par rapport mmh. aux accidents sur euh, Mansour Faye. Ah. Aujourd'hui, il est interpellé, je pense qu'il doit rendre le tablier. Comme... Il avait dit même si son beau-frère n'ose pas le débarquer, il doit rendre le tablier ne serait-ce que pour son honneur. Asgor hmm. kenn du suppi loxoom ci lekk. ci ndam moom li waxoon lii le 11 janvier 2023. ba accident yi commencé am Sénégal. accident a bëri de ci aujourd'hui yi ngi bëri na mais bi gën a garaaw mooy aviation. Mhm. donc tey dañ koy wax dañ koy dañ koy dañ koy wax rek dañ koy delloowaat li mu waxoon. ne ko mhm. as gor kenn du sippi loxo ci ci ndab. parce que moom moo waxoon Mansour dafa waroon def pour démissionner donc tey waroon naa démissionner balaa nit ñi di ko wax. parce que accident yu bëri. même su nekkee teel na. parce que xam nga accident moom c'est pas du domaine du ministre et autres. pour mu comprendre quoi. pour mu comprendre ni accident. Mhm. du mbirum ministre. wala du mbirum président de la république. parce que ku def accident bëggoo def accident. avion démb bi su continuer woon dem. ci lay gën a metti dañoo am chance. parce que dafa rebrousser chemin. am lu mu defaraat voilà il faut féliciter le pilote qui est revenu. qui a mhm. rebroussé chemin dellusiwaat atterrir. pour del pour jëlaat jëlaat jëlaat jëlaat vol. Mhm. foofu la ko fay mais su continuer woon volam. mënoon na nekk musiba donc pour dire que les accidents c'est pas du domaine du nit wala un ministre et autre donc nañuy moytu diw moo fa nekk moo tax voilà donc puisque tey nag malchance bi moom la am. Mhm. mooy tey moo fi nekk yi bari na te depuis ba mu faloo ba léegi ci accident yi y waaw donc. Euh, pour ñu moytu wax yi rek quoi donc nañu jéem a trouver une solution par rapport à ça pour diminuer atténuer ces choses là nga xam ne accident yi dina wàññeeku maintenant nag pour loolu am il faut prendre des mesures radicales yoo xamante ni dinañ ci mën a tunk pour mu mën a am. te mu am suivi te mu am suivi.